président de la république. Macky Sall dañ ko faloon. Mhm. Sénégal yi gis nañ ne li mu fi nekkee woon wala li mu fi def doyu leen jëlee nañ ko fi moom loolu tax ñu jële ko fi. Mhm. mais parti yi du ñoom du ñoom rek. Mhm. ñaata part ñaata parti ñoo dem ak ñoo nga xam ne ay ay bonne volonté lañu. dem am na ñoo xam ne consommateur lañu. ñii chambre de métier lañ nekk. ñii ci transport lañ nekk. peut-être gouvernement bi lu muy liggéeyee si transport neexu leen. ñu bugg am député bu leen bu leen bu leen jëlal seen kàddu. ñii ñu ngi ci chambre de métier bi. gis nañ ne li ñuy liggéey développé wul Sénégal du ko jënd dañuy dem Chine jëndi ko fa indi ko fi. Mm. te am na Sénégal yu ko mën. Mm-hmm. donc loolu yëpp bëgg nañu am député boo xam ne day dem taxawul leen. Mm-hmm. comprendre am na koo xam ne day xeex pour banque yi jox nit ñi seen cër assurance yi jox nit ñi seen cër. mais kooku tey lu tax muy lu tax muy kii dafa bëgg am kàddu assemblée. di ko wax ministre bi ak gouvernement bi. pour tey li ñuy banque di dagg mu ëpp. mu bañati am li ñuy assurance bi di teg mu bañati am. lii tey euh, nga dem sene rek ñu dagg la loo xam ne wala fay la euh, facture boo xam ne seer na. mu bañati am ndox noonu ñooñu. loolu lañ soxla. ñu mel noonu lañ soxla nga xam ne ñoom tey nekk ñu woon dara ñu ngi si mbedd mi di défendre. seen intérêt. li nga xam ne mooy seen métier. Mhm. comme tailleur bi. Mhm. comme artisan bi. comme ñeneen ak ñeneen moo tax ñoo ñëpp tey parce que tey législative bi mën nañ ne mosu fi am. waaw surtout loolu. législative la boo xam ne tey ki daan gunge nit mu ñëw wax la programme am boole ko si naan la naa la jàppale naa la nangam bu faloo teg programme boo koy wax mu naan la je te rappelle <laughs> wala envoyé ma message. gaaw nañ ci loolu ko fal tey. mu ne la ak yónnee ma message mais yow. musu mm, musoo mm, am numéro am yéen ñaar yéen chaque jour yéen a ngi gisee. Mm-hmm. nga naan ko nag may yónnee texto yónnee ma texto après naa la rappelé. Mm-hmm. du la jël téléphone. Mm-hmm. man mi am na directeur bu ñu euh, fal euh, kii nu mu tudd. kii euh, maire Diass bi tey. fal nañ ko. ñoo laan toog làmb jëri seetaan làmb. tëgg na fi làmb sax Lac de ak euh, Babacar bu Fass. man mhm. yi ma waxaale. Mhm. mu ñu fayal ko lépp mu mu tëgg làmb ji. ñuy toog Medina jonn Medina la dëkkoon. Mhm. ñuy toog di stade di seetaan làmb. mu xam ma ma xam ko mu am sama numéro mu am numéro mais keroog bañ ko defee directeur COSEC. da lay romb nii sax du la nuyu. jël téléphone am teg si baat bi bañ ko dàqee mu ñëw di ma nuyu ma ne ko teel sa loxo. loolu moom loolu moom bëri bëri na ci ay. bañ ko dàqee dama ne ko eh. teel sa loxo loo may nuyu. parce que dàq nañ ko. waaw parce que yow mu ne ma lan la ma ne ko xamoo lan la parce que dàq nañ la. Mamadou Ndiol waaw Mamadou Ndiol ba nga nekkee directeur. Mhm. faale woo ma. Mhm. pourtant ñoo doon nekk mais da nga ma da nga way bari na. est-ce que est-ce que yaakaar nga ni yomb la. Mhm. yaa ngi dégg yomb la ci loolu Sénégalais yu bëri loolu la ñuy def. te loolu moo dul yoon. képp koo xam ne nag def na la ko. liste bu mu bokk. Mm-hmm. yaa ngi dégg waroo ko voté. moom laa la wax est que yomb na est actuellement. ci Sénégal bi ñu nekk nii. Mm-hmm. nga xamante ne mën nañ ne politique bi daanaka quatre-vingt-dix wala quatre-vingt-dix-huit pour cent bi intérêt moo ko lal est yaakaar nga ne mm-hmm. possible na ñu yóbbu assemblée wala ñu voté assemblée ñoo xamante ne askan wa donc kese moo leen ñor. fii loolu la ñu koy doyee. est-ce que mën naa nekk. mais mën na nekk. sans dépense nit ki rek xam nga nit nag doomu aadama yaakaar la am. surtout loolu. tey mun nga nit mun na man de li may li ma gëm mooy. ku ma fal tey nekk naa président des amateurs. bàyyi woon naa ñu woowaat ma ne ma ñëwul. Mhm. fekkoon dama fa def lu bon kenn du ma woowaat. Mhm. Mhm. parce que jël sa sa lépp jox ko ñi nga xam ne ñoo la fal. ku la soxla nga mun ko taxawu def si li nga mën. boo si deful li nga mën mu xam ne yow mi taxawu nga ko def nga li nga mën. mais loolu la ñuy doy nit. nit njariñ nit ko amul njariñ jar ta xam. ñi fi nekk ni yëpp di nax ay député chaque jour di xeex di kii seen intérêt personnel la ñuy xeex. Mm-hmm. intérêt personnel nag du député.